jàmm moo am importance te jàmm moom la suñu kilifa yëpp bëgg moom la sëñ Muntaxa bëgg moom la sëñ Mbay Si Mansour bëgg moom la laayeen yi bëgg moom la njaasaan bëgg moom la euh, waa Popenguine bëgg moom la Ceneba bëgg moom la roi Oussouye bëgg moom la suñu mbokku séeréer yi ñi ñi ñi ñi ñiy topp roog seen bëgg li ma li ma def man mooy dëgg mais teeluñu koo xam léegi nag ah, xam nañ ne mooy dëgg waaw moo tax dëgg moom du réer loolu la wolof wax daf ni mooy mujj mais ki ko ñemee def nag mooy ki mu ko leer ni yàlla waajal na ko mu mën a muñ diggante bi mu koy def ak ba dëgg ga di feeñ ci bëtu ñeneen ñi la ñu ko cay teg ci jam-jam mais il a des terroristes pires que cela qui veulent créer le chaos et le désordre pensent-ils pour pouvoir s'emparer des richesses du Sénégal et, et, et ça nous ne le laisserons pas faire amul balai citoyen amul euh, France dégage amul keneen Sénégal kenn du ko taal je l'ai dit à Macky je lui dit moi je m'en vais mais il faut que la sécurité du pays kiinu nous préoccupe tous les deux soit garantie loolu la imam bi xutba loolu la ñëpp war a répéter ba mu wër àddina bi wërëngal këpp voilà jàmm la paix